Bakel 24 TV la chaîne digitale de Bakel. waaw ah, asalaamaaleykum mbok yi ñu seetaan ñu ngi di len di leen siyaar yi ñëpp di leen jamm man la Boubacar Faye donc di éleveur euh, volaille d'ornement nek Tambacounda fi di élever volaille d'ornement bi euh, yu demee ne ay brahman ay cochin donc euh, ay perche ondulée donc yooyu dañ koy élever bir bir bir Tamba fi ni quoi donc ñëw exposé vos indi woon benn exposition quoi yu demee ni ay Brahma Brahma Brahma euh, blanc herminé noir donc bi mom Brahma perdrix la donc voilà exposé fi aussi cochin fauve voilà exposé je veux aussi tamit euh, li ñuy wax Brahma caillouté donc voilà ak cochin fauve ba donc yépp ñu exposé ak petit yi ñuy wax euh, perruche ondulée yé mom ay ay mandarin la donc yëpp dañ ko fi def diko diko diko produire fi bir produire fii biir biir adresse bi Kanawetaan euh, Tambacounda nekk Kanawetaan euh, numéro de téléphone bi 77 433 78 05 donc nek Tambacounda Fille Kanawetaan. Bakel 24 TV la chaîne digitale de Bakel.